ñu koy toppee di corruption passive guerre gañu koy waxal nénañu nañu def na ko doonte bu ci laalewul directement njiital union des magistrats du Sénégal di magistrat bi di Souleymane Téliko ñu convoqué ko fële ci ICAJ inspection générale de l'administration de la justice Kurel gëmu jité di UMS di ko ñaawlu lan la ca loi bi wax des na ko ak yeen ci xibaaru digg bëccëg gi defub gëstu jëmee ci Macky Sall mi solo dalam fas yene wutali Sine Saloum ngirub tournée économique mon président de la république ndax le xel mu rafet mën nako nangu ci jamono jooj ñu bari ci askan wi ñoo ngi tëmbaka buujaka ballale ci inondation bi demoon seeti loolee doon yitte ji wala ndax fa mu jëm foofee mooy illa ji tontu li ci xibaaru digg bëccëg gi ci gës boobu des na ko ci def bu ñu ci noppee daañu dikk ci coronavirus gi tolluwaay gi ci réew mi seetlu gi moo di may delloo gannaaw ma ngay wéy ba léegi li koy firndeel di bilan tey bi fanweeri nit ak juróom-ñeent yu corona la ñu am ci test yooyu def nañu ko mu toll ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent. amna kenn ku ñàkk bakkanam ci wopp si ba corona bi duggee ci réew mi ak léegi ñi ci faatu ñu ngi toll ci ñetti téeméer yu manqué benn maanaam 299 décès El Georges Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay njaay Mohamed. Eh, xibaaru biti réew yaa ñu koy faram fàcceel lu cay gën a fës. daañu wax ci eh, sommet bu cdao ak eh, CNSP bi amoon dembu ca Ghana jëm ci crise bu foofa ca Mali ab kilifa M5 RFP àdduna ca da ngeen dégg ci xibaaru midi 13h gii nii Clément Dembélé bokk itam ci.

danga ñëw débbale ko xibaar bi ci réew yooyu Alaaji Georges ci kanam tuuti lay doon buñ ca noppee daañu ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ci wàllu tàggat yaram maa ngi lay nuyu Cheikh. maa ngi lay ziar Mamadou Mohamed Ndiaye. lu ciy gën a fës. wàllu basket danañ ko daal di waxtaanee ci xibaaru tàggat yaram yeeg championnat d' Afrique ñu amal ci weeru décembre ca Égypte te mu te jagleel ko ñi fukki ak juróom-ñett ak lu néew Sénégal nag dana ci présenté ñaari équipe bam di góor ñeeg jigéen di Moustapha Guèye

ni ñu ko baaxoo àllarba bu nekk daañu ñëwit ak yéen ci Coro News mu di ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi ñu ci yànd ak Kumba Yacine Sandiane Faye danaa leen jukki las la fi ci yëglekaay yi xëy di génn bës bu nekk jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey jii li ñu ci waxtaane mi ngi jëm ci la Layop Lamine Diack ak fa mu mujjeg la ca yoon dogal ca France gis-gis ban ngeen ci amee seen xalaat ci njeextal xabaar yi ci gis-gis ci rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi.

32e euh, chambre bu tribunal correctionnel bu Paris joxé na verdict ba limu ci ca mam lamuko la euh, na na verdict ba tëddee modi corruption passive euh, jëm ci guerre gok def na ay athlète russe jox ko loolee la ñu koy toppee ñu jàpp ne ñeenti ati kaso yoo xam ne ñaar ya sursis la mom la ñu ko daan boole ceekit alamaan ju tollu ci 500000 euros buñ koy xeyma ci CFA mu wara tollu ci 327 millions

un million d'euros d'amende ak ñu interdire que mu pratiquer ben activité bo xamné lal na sport pendant 10 ans et nous avons ko aussi un mandat d'arrêt international comme nous avons ko waxé bala ñu koy papam wax euh, deux ans ak sursis 500 000 euros d'amende nous avons aussi bénéficié nañ ko na euh, aménagement de peine c'est-à-dire que nous na am libération conditionnelle hein, sans limite d'âge vu son âge non lañ expliquer. Information que vous ko mujjé ajouter. Euh Abib Cissé aussi mon euh, avocat euh, Lamine Diack mom ñetti at condamné mais deux ans assorti de sursis 100 000 euros euh, d'amende, interdit même que aussi mu activité mu pratiquer activité avocat ak toute activité liée xamné ce lié na sport pendant juróomi at mais mom <clears throat> nous euh na bénéficier euh, d'un aménagement parce que du d'un prison dañ koy placer sous contrôle et sous surveillance euh, électronique après à Cissé d'olé, xam nañu mom docteur bi euh, deux ans avec sursis lañ ko condamné 140 000 euros d'amende mom aussi interdit nañ ko mu def bépp activité boo xam ni jege na sport dinañu continuer jël yenn détail mais yii ñooy euh, euh, verdict bi pour le moment des na bu ñaar bu Russie yooyu la ñuy dem taataan léegi Mamadou Mohamed Ndiaye. Euh, bala ma lay bàyyi Cheikh dellusiwaatal ci bu avocat bi Habib. Habib Habib Cissé mooy ñetti à trois ans dont deux ans assorti de sursis amande bi mooy cent mille euros waaye interdire nañ ko aussi mu mu def activité avocat ak muy yëngatu ci bépp activité buy lié ci sport boobu pendant cinq ans la nee nañu aussi dina bénéficier benn aménagement maanaam dañ koy placer sous surveillance électronique. jërëjëf maa ngi lay gërëm ci leeral yooyu euh, Cheikh Sidou Sylla correspondant RFM foofee ca diwaanu euh, France ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ñoo ngi ci jokko bi ak maître Moussa Sarr mooy avocat bu euh, Pape Massata Diack baaba bokk ci avocat yi maître maa ngi lay nuyu mang lay fay. Eh, ñoo ko déggandoo kon lu aju ci 32e eh, chambre tribunal correctionnel bu Paris daan yi nga xam tek nako ci ndoddal sa client eh, Pape Massata Diack ba moo di cinq ans euh, d' emprisonnement ferme juróomi ati kaso yu ñukoy koy tëj alamaan ko 1 million d'euros tek mandat d'arrêt international ci wu loo sam boole cee ki tere ko mu yëngu ci ben activité bo xamante dafa lalé ak tàggat yaram sa commentaire bu ñëk ci verdict bi. Oui, je ma ci comme commentaire moo di y cela plusieurs semaines je euh, ma wax ne su layoo amee dafa am principe fondamental ne charte bu am solo ci mbiru nit ki défendre mm-hmm. les droits de la défense ci dossier bi yéen ñëpp xam ngeen ko que dañ ñu les principaux avocats de Pam Massata Diak ñu dem tougal pour mën ko layol ndax ak coronavirus bi ñu won dem ñu ñaan ñu dàq ko pour ñu permettre ñu mën a dem ñu tere ko kon su loolu amee da ngay xam ne lii xeeñ du neex moo tax waxoon nañ ko donc bettuñu kon bettuñu parce que procès bi dañu violer les droits de la défense qui est un principe élémentaire donc le procès n'a pas été équitable pour notre client

sàkk won na ko donc beesul li juge bi sàkk won bi ñu ci au moment de l' instruction moom la ñu wéyalaa rek ci jugement bi donc dara beesul ci fan mais mais du mais du moment aw nag tribunal dëggal na ko xam nga bee càkkuteef la woon bii nag lu ñu dëggal la non non bee du woon càkkuteef hein mhm. bee lancé woon nañ ko du woon càkkuteef dans le cadre de l' instruction mhm. juge bi lancé woon na mandat d'arrêt arrêt maintenant ci jugement bi encore ñu réitéré wat ko kon lu bees. léegi lu luy fas yéene doon seen taxawaay da ngeen di bàyyi nan rek wala dafa am da ngeen bëgg a sóobu ci leneen mais sëñ bi duñu ñu bàyyi mhm. dañu tere ñu dem défendre suñu client. Mhm. pour won tribunal bi né liñ koy tuumal amul ñu xañ ñu ko muy ben principe élémentaire boo xamné képp xam nga ne kuy layo lolu sañ-sañam la képp ku ñu tuumal mhm. liñuy def moy dañuy interjeté appel yaakar nañ ne balaa appel bi waxu coronavirus kenn dootu ko waxati ci aduna bi ñu dem taxaw pour won suñu client né liñ koy tuumal won cour d'appel bu Paris ne liñuy ñuy téemal suñ liñuy tuumal suñ client dara amu ci et appel bi c'est suspensif. ma ce ko suñ défé appel fay une première décision bi mooy ba pas massa de jak bénéficie de la présomption d'innocence a une def appel au plus tard demain matin par le biais de suñu représentant bi à Paris. jërëjëf maître Moussa Sarr euh, xibar bobé nga ñu baxé maître Moussa Sar bokku ci avocat yu Pape Massata Diagi nee na dañuy def appel bo xamné suba lañu koy def te it euh, lu aju ci verdict bi nga xamante ji kon ko na ci 32e chambre tribunal correctionnel bo Paris ñël seenub client di Pape Massata Diaghi bettu andu ñu ci ndax euh, dañoo salfaañi àqam ak yelleefam ci yooyu wal wàll maître Moussa Sar mu doon andi yooyu léral euh, fàttali auditeur yi yëf yek ni mu demee moo 32e chambre euh, tribunal correctionnel bo paré joxé na verdictum jëm ci affaire corruption bi ñuy wax ci I2AF di ci tudd euh, ko ci melné Lamine diak ak doom ja Pape Massata Diack ak maître Habib Cissé ke dolé yëf yak na mu teudé verdict bu Lamine diak moom mo njëkk daanu ñeenti ati kaso yoo xamante ne ji ñaaree lay bolé ko kook alamaan ko juróomi 500000 euros corruption passive jëm ci guerre goog nee nañu loxoom daf ko ko daf caa laale eh, diggam ak ay athlètes yu fekk baax mu Russie loole kon la ñu koy tuumal keneen kookit verdictam daanu na moo di Pape Massata Diack cinq ans de prison ferme moom la moom la ñu dogal ci moom un million d'euros bu ñu ko alamaan boole ceeg mandat d'arrêt international bu ñu gàll ciw loo sam nee na ñit bépp activité bu laale ci sport tere nañ ko mu mu mu jëfe ko Eh, keneen kookit ñu ngi ko doon tudd ca yëf yooyu ab daanu di Habib Cissé ñetti ati kaso yoo xamante ne ji ñaar ya sursis la alamaan ko cent mille euros eh, kii di dooleet moom ñaari ati kaso yu ànd ak sursis la ko daan ak cent quarante mille euros loolee kon des na ci dikk nu mu gën a yaatoo fàttali auditeurs yi ne moom la ñuy waxtaanee ak yéen ci gis-gis ci radio Futur Média xibaaru digg bëccëg gi ci RFM 13h13. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaari wéy te wóor ci union des magistrats du Sénégal di euh, juge bi di Souleymane Tiliko, convoqué nañ ko ba bésub tey jii kanam inspection générale de l'administration de la justice lu aju ci déclaration yoo xamante ne ji defoon jëm ci mbiri Khalifa Ababacar bakar ak taxawaay bi ci yoon am loolee ñu ne bokk na ca la ko fa woolu ñii di ay naataangoom yu magistrat rawatina ñi mu bokkal kuréel gi di UMS ànduñu ci doxalin wi dem sax ba gis bëgg ko bëgg ko na ci tax ñu ko ci anam wile ana lan la ca yoon wax leerali Diba kurel gi ëmb magistrat yu ci Sénégal def say Ginao Sen président bi inspection générale bi yor administration justice woo ci àllarba gi le convocation la bu ñom wa UMS ñu jàpp ne jaarul ci yoon professeur bi nga de day droit pénal di Ibabare Camara nee mbir mi nak dafa ku association Melni syndicat itam magistrat bi Union des magistrats du Sénégal ñom donc structure privée la dafa mel ni affaire syndicat justement le syndicat yi donc structure privée la boo xam ne bii ñoom ñoom biir la président wu kan le président wu magistrat donc su fekkee ni ci cadre boobu lañu ko convoqué il peut ne pas déférer parce que il ne relève de la seule autorité de ceux qui l'ont élu les membres de l'UMS du dëgg mais nag su fekkee ni dañu ko convoqué en tant que magistrat parce que nag mënoo euh, nekk président de l'union des magistrats donc du Sénégal da nekk magistrat donc magistrat donc en tant que fonctionnaire magistrat donc Souleymane Teliko njiitu UMS en tant que magistrat Moustapha convocation bu IGAJ waye wogi dara nekku ci di gis-gisu professeur droit du Ogosec IGAJ dafa nek ben organe organes xam ne duñ ko samp ci ministère de la justice mais tamit dafa nek organe bo xam mi ngi dépendre ci cour suprême te day exercer ben rôle contrôle bo xam day xol rek ndax euh, walu yoon bi yépp ngi dox ci day def ay enquête ak ak di recueillir ay information mais loolu ci rôlam normal la nekkul lu exceptionnel te aussi euh, su woowee benn magistrat wala benn greffier en principe kooku war na ko mën wuyu mais nekkul loo xam ne rek day indi ay sanction wala ay yooyu mën a nekk juste am ay information janoo bi diggante inspecteur yeeg te li waa UMS di woo seeni membre ñu am vigilance ak solidarité Babes Diba gouvernement bu senegal taxawaay bi mu bëgg am ngir xittili askan wi génne leen ci ndox mi nu mu gën a gaawe jaaree ko ci plan ORSEC dafa mel ne ku amee jafe-jafe ngir lolé mën a yemb bu ñu ci li ñuy gis né bari na ay quartier yu nekk ci réew mi danaka askan wa ñu ca bari ñongi ci biir ndox mi firndali moo di ca diwaanu Kees ca quartier bi di Kër Maam El eh, di quartier bop këru diine gii di eh, njabotuk eh, njégen njégen yi fa la ñu sétlu nañu né ba légui ñu bari ci askan ñongi ci biir ndox mi ñuy sakku nak ñu wax ci ñom yëf yeeg ak namu démé dal dafa dem bu jur ci ñoom ñëgg-ñëggi xol Cheikh Anta Diop ci leeral boo duggee ci quartier bii di Kër Maam El daanaka miir yu bëri ak ay néeg dañoo daanu fii de ndox maa ngi taaju ba léegi askan wi yeewoo ci quartier bii de nee nañ waa Kër Maam El Hadj sonn nañu Serigne Ahmed Ndiégène moom mooy délégué de quartier bi. waa jafe-jafe yi nag lépp li ko indi lépp du dara du canal waaye li ci gën a métti mooy kër yi nga xam ni daf ciy dugg te man kër gu ma ci dugg rek wax dëgg yàlla damay am yërmande ci ñoom parce que damay xam ni ndox fu mu dugg ci kër bu yàqul salte ndox moom la muy bàyyi ci suuf sere jàngoro la ndax ci dolli nag la muy yàq dugg naa ci kër yi man ak comité de quartier bi def naa cinquante sept maisons foo ci dugg ñi ay dégâts matériels lañ ce moom moom daf ko romb parce que am na ci ay bàmmeel yoo xam ne ñoo ko defaraat waaw parce que xale yi bi ñu waxee ñu ne ma lañ leen dem defaraat ko waaye waaw pont bi dafa am lu mu jël mais ci biir penc mi dafa am ci kër yoo xam ne daan nañ inondation yi nag laal na leen lool waaye nee nañ gisuñu benn kilifa boo xamante ne ñëw la fii te tu benn saafara buñ ci indi du gasama nag di sàkku nak ci kilifa yi ñu teg yeneen ni pexe defaraat beneen canal fii ci kër maam El Hadj ngir ndox mi man di dem. ndax fii dëkku kilifteef la. ñu ngi nekk autour di xalif alaaj Mounirou Ndiéguène moo tax mosu ñu ñëw dégg ñu coow. fi mu ne nii nag dafa ëpp. fukki at ak ñett ku ko dund ci mbir mi. mais metti na. tey jii Thiès. koo dégg muy wax problème ndox mi danaan la kanaalu kër maam El li nu wax état bi. mooy quand même ñu yeggale kanaal ndox mu bari jugu. ci quartier bi di Kër Maam El Hadj délégué de bi di Ahmed Ndiéguène mi ngi sàkku nag ci kilifa yi ñu yoral ab plan orsec local ndax kilifa yi mën a indi saafara ci inondation yi nga xamante ni laal na quartier yu bëri fii ci diwaanu Thiès RFM Thiès Cheikh ante Diop. Cheikh Anta Diop Baye euh, bàyyeekoo ci ku ci brigade nationale sapeur pompier newoon Diamonoite, jamono sapeur pompier di euh, colonel Mamadou Fofana jàpp na ne li di plan sec bi mënut a jafé jafé inondation lim ci man rek moo di aw ca lëf gis na ne li nga problème inondation moy askan wi ci barab yi faral Dita, ñu jëlé len fa lolé ay kàddu yo Radio ji mi ngi ko tay ji ci Radio Futur Media RFM matin. waxtaane leneen moo di lan moo sabab euh, njiitu réew mi Macky Sall jug solu dàllam di yemal tournée économique ci jamono joj ñu bari ñi ko doon séentu ngir mu dem ci barab yi nga xam ne jamono ji ndox ma fa fees ba togg askan yu fitna li tax mu bàyyi fi loolee jublu ci tournée économie war a dem fële ca diwaanu Fatick Kaolack ak Kaffrine ci samedi ji ci la koy door ndax mbir la moom lu rafet la ci gis-gis ñu ànd ceekub taxaw seetlu ak amadu Sabar Ba Dakar ak dëkk yu bari nekk ci biir réew mi fi mu toll nii lii di mbënd mi sonal na leen naam sax nguur gi déclenché na li nga xam ne ne mooy plan sec ci jamono jooju président Macky Sall choisir rek ngir dooraat li nga xam ne ne mooy ay tournée économique am ci biir réew mi muy lu jaaxal lool Amidou Anne nekk spécialiste en sciences politiques ca université Gaston Berger bu Ndar. ak bii nag dafa toll lu xaw a waar coronavirus bi ak euh, mbënd mi tout mu nekk daal contexte bu bu xaw a difficile difficile lool lool lool sax ci ci population yi euh, li ma ci xaw a jaaxal rek mooy comme dañoo wax euh, nañu nañu moytu di jaxasoo nañu moytu di nuyonte nañuy nañuy sorente mooy li ñu la distanciation sociale bëgg a def tourner ci contexte boobu alors que autorités yi ak médecins yi ñoom ñëpp ñu ngi woote distanciation sociale doon na lu ma xaw a jaaxal. li nga xam ne ne mooy tournée économique dafa bokk ci agenda présidentiel ci jamono joo xam ne ne sax askan fi mu toll nii li leen gën a ñor mooy seen dundin rawatina ci mbënd mi waaye tamit xeex bi ñuy xeex jàngoro bi di coronavirus loolee mooy xalaatu Ibou Sané di jàngale li di sociologie politique. baaxoon na pour mu jege askan bi askan bi xam ne ñun am nañu président du président Dakar parce que boo xoolee Sénégalais di yaakaar ne président Dakar rek la te lu am lépp Dakar la région ñu mooy mooy tànk yi peut-être que maire période mu choisir nii baax na pour population yi mais baaxul aussi parce que mbas maa ngi fii mais bu dee affaire mbënd bi nag war na ci góorgóorlu bu baax a baax ba Sénégalais gis seen bopp xam ni président la président ñëpp la du président Dakar rek ci week-end bii ñu jëm président Macky Sall dina dooraat li nga xam ne ne mu ay tournée économique am ci Sine Saloum bi waaye ci jamono ji nga xam ne ne moom la ko bëgg a defee ñi nga xam ne ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllum science politique jàpp nañ ne me poser problème. Loi du ci wopi coronavirus ji ak bilan bek ni mu tëddee ci 24 heures yi ñu genn mu di xibaar ñu nango ci wa ministère de la santé ak euh, action sociale lu tollu ci junni ak témir ak juroom benn fukk ak juroom ñent test la ñu def tay ji ñu am ci euh, fanweeri doomi adam ak juroom ñent yame wopi coronavirus gi am nañu fukki ka communautaire ak juroom ñett euh, am na kenn ku ca ñak bakanam limu ñu faatu ci corona bi mu duggé ci réew mi ak légui mi ngi tollu ci ñetti témir yu manki ben manam 299 décès juroom benn fukki doomi adam ak ñent nak wér nañu génn kon ci loxo yu docteur yi woppi coronavirus joojee taxoon kilifa yi indi woon ay matuwaay ak i dogal rawatina ci wàllu transport en commun yi demoon ba ne sàkkal borom wata yi nit ñi ñu am droit di dugal ci wata yi maanaam limité place yi démb nag amub arrêté bu bàyyeekoo ci ministère transport terrestre daal kon teggi Euh, misir yi nga xam ne tegoon nañu ko laaj bi di ana ñii di borom wata yi ak ñi nga xam ne ñooy faral di jëfandikoo transport en commun yi nu ñu ko fas yéene doxalee rawatina matuwaay yi ci wàll wér gu ci jamono ji nga xam ne ba léegi corona bi mi ngi fii reportage ca banlieue bu Ndakaaru Salif Sow arrêt-bus Serigne Assane la ñu nekk xumbute lañu fi seetlu ak ay rang yu gudd ci kanamu minibus bleu ak blanc yi fi fekk ci client ñi bokk na ci soxna si ëppal ñeent fukki at nee ñaari waxtu la doon def ci l'arrêt bi balaa muy départ bi ñibbisi tamit naka noonu tey ci suba mbégtee fës ca kanam ga moom Dior Samb yeewu taxaw fii tamit ba sonn doo am oto tamit xam nga neexul kenn bëgg ko des fois def une heure de temps mbala deux heures de temps ci sur surcharge bi Saliou ngoom moom moo gisee nu nu mel ndaxte nee na bu ko neexee toog bu amul place taxaw dem liggéey. comme permettre nañ léegi nit ñi di taxaw ah sant yàlla rek ah léegi ku ñëw rek da nga ñëw dugg bu la neexee taxaw dem bu neexee nga xaar beneen bus ñëw nga toog te moom baax na. mbégte tamit fës na ci kanamu way transporteurs yi di ñi moom wote yile El Hadj Seydi Ndour moom régulateur la beneen xale bu góor bi wax moom bu noppee kooka receveur la ligne 32. na permettre oto yi nga xamante ni ñoo taxawoon. parce que ndax par manque de recette. parce que bari si am yoo xamante ni dañu liggéey à perte la ndax loo daw ba jant sow nga ñëw sële ko gasoil fay say employé daanaka oto bi du dese dara bu paanee si diggante bi du ko mën a dépanner donc mu évoluer waaw bu client yëgee bala nga bu yëgee nanga naan takkal max bu amul max bu ko yëpp waaw bu amee max nga yëpp ko bu amul max bu ko yëpp ba mu yëpp takkum masque bi nag par force la ba léegi ndaxte doomu jàngoro ji mu ngi fi naam ñu seetlu Salif Sow Géejawaay ngir rajo Futur Media. ñii di minibus tata yi di def ba wàccoo ak li nga xam ne santaane nañu ko mu di di yàppalaas yëpp waaye it méngale ko ak. Eh, ay matuwaay ngir moytu jàngoroy coronavirus gi ana fuñ ko bëgg a jaar dees na ci ànd ak yéen ci yeneen jotaayu xibaar ci leeral yu bàyyeekoo ci Jibi Ndiaye bokk ci conseil d'administration bu AFTU dinañ ci dikk ak yéen xibaaru digg bëccëg gi ci rajo Futur Média benn waxtu du une fegg na ñaar fukki minute ak ñett. RFM. xibaar yi ci RFM. étudiants yi ca université Alioune diob bu Bambey eh, démb lañu ñu tàmbali dañu joxe dañu tàmbali kon mu doord bu 72 heures jëm ci dem di lekki te duñu fay li ñu bëgg ci jublu ko ci loolu mooy liggéey yi nga xam ne dafa ñeel ñaari restaurant ba fa ñu gaaw ko yembal ba ñu mën di ko jëfandikoo mën it di jëfe li ñu santaane mu di moytonteeg dandante ci jamonoy coronavirus gi Mouhamadou Sarr mooy vice euh, mooy président kon bu coordination étudiant université Alioune Diop bu Bambey ñu déglu ko Alaaji Njogu Jën dafa am bi ñu commencé ba léegi ay problème rupture ak euh, protocole sanitaire bi ñu bi ñu tënkoon ci cadre comité de santé yi ñu gis ni ci am na lu des ci lu ñuy war a jëfee ci côté restauration euh, am aussi problème menu ak ay problème rupture yi am toujours ci question restauration ba waral ñu def 72 heures maanaam ñetti fan yoo xamante ni si dañuy def restauration gratuite mooy des journées scientifiques di waral problème yi yëpp euh, mooy euh, problème restaurant bu ndaw bi ñu yor au niveau du campus 2 parce que benn restaurant moo fa nekk buy fonctionnel te tey jii nii daanaka problème yi warul woon am parce que reprise graduelle la ñu def étudiants yëpp ñëwuñu benn pàcc étudiants yi ñoo ñëw donc waruñu woon am problème yi mais boo ko gisee mooy dafa am restaurant boo xam ne ñu ngi koy tabax ci campus 2 ba léegi pareegul léegi mu mot juróom benni at wala lu ko ëpp ñu ngi koy tabax ba léegi mënut a fexe ba pare te tey restaurant bi fi mu toll ay finition kese moo ci des donc war nañ ñu ko mun a jébbal ñu wàññi problème restauration ba waral ñun ñu jox leen ultimatum 30 jours ne leen fii ak 30 jours nañ ñu fexe jébbal restaurant boobu noonu la xamante ne li ci des ci liggéey daanaka bëreetul ñu mën a wàññi coono yi ñuy daj ci côté restauration parce que bi ñu ubbee ba léegi année bi bi mu commencé année académique ba léegi ñëpp a ngi dégg ñax fii ñu ñax ci côté restauration donc tey day nekk lu jaadu restaurant boobu noonu ñu jébal ñu ko ndax ñu mën a wàññi coono yi ñuy dund. RFM bitim réew. delloo dalalaat Georges Diété Diop Alaaji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiaye. kenn ku bokk ci M5 RFP. yëkkati ay kàddoom wala boog defub réaction gannaaw mini sommet bi nga xamante ne ji e def na ko keroog jëmee ko ci crise ba am ci réew bu Mali. Clément Dembélé lay wuyoo mu ngi bokk ci M5 RFM mois du 5 juin moom sax ab membre fondateur la euh, euh, e li nga xamante ne waroon na ko euh, imposer waa Mali da war a jàppale gunge leen Clément Dembélé leeral ni itam am na ñi bokkee ca m RFP ñi nga xamante ne nangu nañ charte de transition bi nga xamante ne moo ci concertation nationale yi jokkoon nañu ak moom ca Bamako. le problème de la validation. la charte transition bi mbir la moo il faut mu leer ci bopp ñëpp. ñu wax ni plan bi am na ci ñu bokk ci mouvement du 5 juin bi dana ko nangu am na ci ñeneen ñoo xam ne nanguwuñu ko loolu il faut que waa CEDEAO xam ko waaye itam waa CEDEAO foog ñu xam ne ñun waa Mali dana wàcc ci mbedd mi ñetti weer di xeex ngir am ay coppite ci boppu nguur gi kon ñoom itam dañu war a bàyyi xel bu baax a baax li askan wi bëgg waruñu rek tënkandiku seen ay sart bëgg ko teg ci kaw askan wi ndax askan wi moom mooy dogal askan wi dañoo xeex ngir yëpp soppeeku loolu nag def nañu ko léegi ñu suñu jafe-jafe ak suñu ay yitte nekkul ci wala militaire mbaa muy civil lu wax ji nekkul foofu wax ji mooy ñun dañoo civil lañu yu amoon ay corruption ak yu mel noonu ñu xeex ba jot nañu itam am ay militaire def mel ñu moo xam mu am ay civil ak i militaire ñu booloo di liggéey ngir génnee Mali ci jafe-jafe yi mu ne yóbbu ko ci développement waaye bëgguñu am ay nit ñoo xam ne dañu naan ñii ay civil lañu wala ay militaire lañu. loolu ñorul askan wi ñorul réew waa Mali te fokk CEDEAO jël loolu te xam ne il faut que mbir moo gis ñu def ci fulla ak fayda mbir moo gis na ko gisee noonee nga koy attee waaye mënu ko gisee ci mi boor bëgg ko attee ci boor bee loola dafay jur safaanoo te ñun réew Mali guddi ñu toll nii yittewoo nañu leneen lu muy safaanoo te loolu nag il faut que waa CEDEAO ak waa réew mi ñëpp bokk ci gis-gis Mali suqaliku la bëgg te ñi ko yore dañu war a nekk ay nit nu jub te am lu ñu gëm. aussi par des militaires corrompus, des militaires incompétents. ca Malick Ba léegi njiitu réew ma woon di Moussa Traoré génn aduna démb bi mu amee juróom-ñett fukki attaque ak ñett général Moussa Traoré mom jëloon na nguur ga atub 1968 la ta ñokoy daaneel ci atoub 1991 ñu tégon ko dan euh, ngiru ndundam waye dañ ko mujjee woon gracier ci atoub 2002 ki defoon lu ñu mel nak moo di njiitu réew ma fa won di Alpha Omar Konaré ci Côte d'Ivoire mom climat politique bo léegi dafa xaw a tendu manam euh, dafa tendu noonu lañ koy waxe sax. dafa bari ñol-ñol. dafa bari ñol-ñol lolé tax sax doomi Sénégal yi nga xamante ñu nga fofu ci Abidjan am liñ ci japp way ñom li ñu bëgg moo di élection présidentielle bi fas yéene am ci weeruk octobre gi ñu dëgmal amee ci jàmm ñu déglu leen euh, ci ab micro trottoir bi nga xamante ne euh, Gobia Iya moo taataan seen i kàddu. Matara, Papa et Diouf sont issus de les communautés sénégalaises vivant en Côte d'Ivoire. En tant que résident sénégalais en Côte d'Ivoire, je souhaite euh, un apaisement total de la situation euh, politique euh, en Côte d'Ivoire. Euh, en tout cas ñun en tant que sénégalais dañuy ñaan rek mooy euh, élection yi déroulé si jàmm ak salaam ba nga xamante ne du am benn benn yëngu-yëngu du am benn yëngu-yëngu nit ñi mën a liggéey seen liggéey Sénégal ak Côte d'Ivoire li leen boole yàgg na du tay tey jii lépp lu xew Côte d'Ivoire mel na ni si sénégalais la xew donc ñu ngi leen di ñaan vraiment mu am beaucoup dal bu bëree bëri et que le meilleur gagne. Eh, damaa si jaar rek dem ci élection suñu mbokk yi. dañoo bëgg élection bi na dem ci jàmm nañu dem voté ci jàmm ñëw ci jàmm loo amoon 2011 bañ a amaat lañu yàlla yàlla musal loolu musiba boobu parce que Côte d'Ivoire dañoo bëgg Côte d'Ivoire dem ca kanam kanam. waaye jamono bi daal mooy xam rek élection yi ñu def ko si jàmm ñëw Ivoire yi ñu waaw kenn ku ne nga xam ka la doy nga xam ne boo ko falee mu baax sam réew. ñu wotal ko fekk Alassane Ouattara doyaat na leen waaw ñu wotal Alassane Ouattara parce que aussi c' est un beau président il travaille ñi des aussi du ne aussi benn président rek moo mën a yor am réew bu ñu xoolee ñoom xam ne beneen kenn kenn ku mën a yor réew mi changé ko aussi y' a ñu bàyyeekoo fële ca Côte d'Ivoire dem ca réewum Guinée Bissau foofee infirmier yeeg technicien de santé yi ñoom dañoo xëy faste seeni loxo ne tous duñu ko liggéey donte sax jàngoro ja ma nga fay wane boppam waaye ñoom fas ñu yéene liggéey lu ñu xewle. grève juróom-ñaari fan la door ko nag tey ni syndicat yoy liñ bëgg modi nguur gi sàmmonteeg lepp li nga xamantene mom la signé won ak ñom manam fay leen seen payor yi nga xamantene yoral na leen ko ak itam seen i euh, nekkin ca liggéey ba gëna jaar yoon ñu dem ci Bisaw fekki fa Noamankali ci notre xamante mom la ñu journalistes et techniciens yu santé publique ñooñu dañoo accuser gouvernement bu Guinée Bisaw na kooku ko protocole le protocole d'accord bo xamantene mom la centrale syndicat signé ak ñom tamit ñu ngi réclamé ci seen cahier de réclamation en yeneen yëf comme approbation bu statut bu carrière bu personnel bu santé publique waaye tamit ñu fay ay arriéré de salaire ci personnel ñoo xamanteni ni ñoo nekk ci contrat yi ben benn arriéré bu salaire ci agent yu bees ñoo xamanteni ñom lañu la recruter allégation bi ñooñu dañoo souligner ni dañ leen di wara fay ñetti wër yu subvention ngir risque bu Covid 19 ci bép technicien xamanteni mu ngi bok ci xeex bu nouveau pandémie bu coronavirus Grèce bu juroom ñaar fan yu agent de santé bobu dafa en moment bo xamanteni Guinée-Bissau mu ngi traversé période bu calamité ngir nouveau coronavirus Guinée-Bissau fu mu toll ni mu ngi am juróom-ñaar fukk téeméer ak juróom ñetti fukk ak juróom benn cas actif bu Covid foo xamante ni fanweer ak juróom-ñeent nit ñoo faatu. RFM dafa tenté joindre ministre bu santé publique waaye mënuñu ko jot Nua Mankali Bissau RFM. Euh, ki donne nañ ne jamono njiit réew bu Gambie di Yaya Jammeh jabaram euh, moom ma nga cay ñol ñol ak ak justice bu bu Amérique. département d'état bu Amérique ak département du trésor ñoo xamle ni Zineb euh, Jammeh jamono ji ay sanctions économiques lañ ko teg lañ teg ci ab ndodam maanaam ay sanctions ay daan jëm ci wàllub koom ay comptam ak i moomeelam yenn ci États-Unis dañu leen bloqué waa département d'état xamle ni Zineb Jammeh moom daal am na loxoom génnul ci li nga xamante ne moom la ñu joñoon baaraamu tuuma kii di eh, Yaya Jammeh mu jaarale kon nag ci assistance matérielle ak eh, di ko jàppale moom eh, borom këram da doon da ko doon jaarale nag ci fondation bi ak itam yeneen i kuréel yi nga xamante ne dañu jàppale doomu aadama ngir Yaya Jammeh mën a jaarale jaar na noonu transféré ay fonds yi nga xamante ne ni mu ko defee du yoon atub 2018 ba léegi nag waa Washington ñoom dañ joxe ñoon baaraamu tuuma Yaya Jammeh ne moom daal da doon këpp keesu Gambie di ko dugal ci euh, poos yi boppam ca Gabon moom maire bu Libreville la ñu euh, tëj euh, kaso Léandre Zué lay wuyoo li ñu koy toppee moo di jël xaalis bi nga xamante ne moom ko xaalis bi ñëpp bokk nag ak itam yorin bu jaarut yoon ak itam blanchiment capitaux moom nag mu ngi woon ca boppu mairie ba juróom-ñeent fukki weer ak juróom-ñeent ngi nii moom Léandre Zué bokk ci parti bi nekk ca boppuk réew ma ñu jàpp ne li mu détourné ëpp na milliard. li mu détourné moom monsieur le maire. waaw jërëjëf El Hadj Georges maa ngi lay gërëm bu baax a baax. Sport. Cheikh Ahmed Tidiane Diagne maa ngi lay. nuyu di la fay Maodo Mouhamed Ndiaye tey ca fas yéene ànd ak yow ci wàllu tàggat yaram doole kook championnat d'Afrique ci wàllu basket ñu jagleel ko ñi nga xam ne amaguñu fukkeet ak juróom-ñett euh, Sénégal taxawaay ba mu ci bëgg a am ñañu ko dénk leeral nañu ko waaw kii di Moustapha Guèye moom moo directeur technique national basket bu Senegal la mu xam ne nag moo di Sénégal euh, ca ndorteel gi la mu bëggoon moo di présenté benn équipe képp waaye gannaaw yëf yi dafa soppeeku Sénégal nag dana présenté góor ñeeg jigéen ñi moom nag ma ngay wax lan moo doon objectifu Sénégal ci googule championnat d'Afrique olympique bu basket U18 ci micro Soda Thiam waaw depuis euh, xam nga bobu dañu waxone ne ñi ñu ngi Bamako goor ni Égypte mais depuis bëkki démb euh, Égypte moy jël ñaari afrobasket yëpp ci dëkkam euh, xam naa ne loolu pour des soucis de de gestion du Covid mais ñun ñun suñu Sénégal suñu wàllu bopp au niveau la fédération suñu mbëbët yépp mooy participer ñaari basket yi décembre bii di ñëw door nañu saa yu présélection yi bu yàgg malheureusement pandémie bi ñëw taxawal yëpp maintenant ñu xam ne participation équipe U18 yi dafay de ci fédération parce que parce que est ce que kon euh, que ni Sénégal euh, dina bokk ci euh, championnat d'Afrique U18 yi xam y a deux ans donc bu problème moyen ba choisir. C'est clair que ñi priorité comme président bi passé mais ñaan moyen qu'il faut pour participer ci ñaari ko yoremi et yu issues yi année prochaine mais ci mën ko def parce que suñu souhait yëpp mooy participer ci ñaari Afrobasket donc taxaw taxawaay bu ñu a am moyen a participer ginnaaw basket ñu waxtaanee wàllu football ak mercato yi fan la fii ci Sénégal wala. ci si jouru Sénégal yi nekk ci biti réew. ah d' accord xam nga fan yi da ngeen di waxtaanee mercato ci réew mi coow lu fi am. Hmm. moo tax bu ma gisee mercato rek pour man yéen a nga ca. <laughs> Euh, agent de de de jour yi ñoo ci joxe seen xalaat. waaw kenn di agent de jour di Adama Ndiaye moom nag euh, ca Marseille la daal di nekk euh, fii nii ci Sénégal benn budul ñaari yoon jëlee na fi ay jour yobulen leen euh, ci tugal ngir ñu daal di monnayer seen talent mom nak yëkkati na ay cadeau jëmele ko euh, ci mercato sénégalais yi gis na ni amna ay yëngu-yëngu waye du ñëpp ku ci melni ni défense centrale bi di Kalidou Koulibaly ak itam góolu ren bi di Edouard Mendy ba si jaaw Baldé Keita jamono gi ñu ngay waxtaanee seen mbir ñu déglu ko Adama Ndiaye euh, ci waxtaan bi nga xam te jot na ko ñun tay yi suba gi Kalidou mun nañu problème moy gëna moy mooy ah. difficile ñeneen ñi parce que pratiquement mom il a joué pas il a fait pratiquement il était blessé mais bi mu ñëwaatee joué na au moins moitié saison bu baax donc euh, am le club yu bari ñu nekk ci moom comme Paris ñi ngi renseigné woon nañ Barcelone renseigné woon nañ mais ñi gën a xër Liverpool aussi à un moment donné hésité dessus ñu ngi woon si kawam mais ñi gën a xër daal mooy Manchester City peut-être ak Manchester United mais Monsieur City daal fi nekk di ñoom ñoo am je pense que ñoo gën a pour jël ko pour Diao problème dina compliqué parce que Diao ça fait deux ans qu'il change de club et deux ans qu'il n'a pas fait au moins 60 matchs et que bu ñu xoolee ne par exemple que joueur bi en moins dina jouer plus de 60 matchs ou minimum par année il y a deux ans, en Italie, on était prêté en Italie. J'ai eu le match championnat bien, mais il n'a pas été titulaire à 100%. D'ailleurs, il est revenu à Monaco aussi. Dans de Monaco, j'ai eu aussi championnat bien. Donc, pour ça, je vais tout. Par contre, pour, aussi pour, euh, pour Edouard Mendy, moi, je pense que euh, Dembou, euh, Chelsea et Rennes, ils ont joué. Si, si nous avons aussi, l'ingénieur wara être buñ ko ñom buñ ko jaayaatee donc loolu moo indiwoon jafe-jafe bi entre ñaari ñaari ñaari bi yi mais démb juboon nañ ñoom moom moom moom foofu sax def na visite médicale am ba pare. Euh, fële ca bitim réew waxtaanee wàllu Ligue ak match bu ñu war a football match retard la euh, Paris moo ko war a football ak euh, ak kan. Metz. ah tey yi ci ngoon ci bu 19h jotee di heure Ndakaaru lañ koy daal di amal kooku lay jongante diggante Paris Saint-Germain ak ñii di waa FC Metz waaye jàppaleen ni am na ay joueurs am solo ñu nekk ci Paris Saint-Germain ya xamante ni ñoom. duñu ko téwé di Neymar ak euh, Di Maria ndax ñom dañ leen dal di suspendre gannaaw carton rouge nga xamanteni ne nañ ko ci sen classico bi ni ki weekend bi weesu sen diggante ak Marseille fàttali sax Marseille mo leen dal di daanon ben bal ci dara sen match bu ñëk nak sen diggante ak Lens la won ci saison Paris Saint-Germain dakkal dal di kon joon mom itam ba tax na tay ji ñom sa la xamlé modi fo di rek ñu dal di kon bok lancer sen saison mën a am dam seen diggante ak ñi di waa FC Metz. FC Metz googu dégguma fay sénégalais yu ah, ay ah. Habib ay Opanguet ay Ibrahima Niane Cheikh Tidiane Sabali bëri nañ fa. Sénégal voilà mi ngi moo tax it du fa la ñoom Sadio Mané ak ñoom xeet a jaar. voilà fa lañ jaar doomu Sidaat Sarr tamit. Euh,

conférence thème opposition ak seen tolluwaay ci Sénégal ti bëntay tànk ak damantay xef yam ci seen biir ñoom ku jég politique gi eh, bu saxee ba wéy gisuma leen mbaaw te yàgg nañoo dégg ñu naan luy naaw lu ne say donc di boobu fa nga jëm soriwul booloo gi ñàkkoon ci seen biir dong doyoon na sëkk xaajaloo waaye bu ñu demee ba boole ci lu kiy wàqi kiy suul Macky Sall moom di doxal te bés bu leen sësee ci miir bi du ngeen def lu dul daw uti wollu ci askan wi di sàkku ci ñoom ñu génn xeex kenn du leen faale xam leen ko balaa ma ay jooye jàpp waa Pastef di dal ci kaw waa réew mi ñu koy duutante ci seen biir waa gëm sa bopp di tontonteeg Pastef te yàggul dara amagul ñetti nawet bi ñu fi àndee ñoom ñëpp di xeex Macky Sall naan na fi jóge jàpp leen ni ak nii ngeen di doxale gu fee jóge te bës bu ay pexeem sottee moom Macky Sall ngeen xam ne lépp dëgg la dina leen dëggaate jaar ci seen kaw xëcc troisième mandat bu dikkul mu puus watey local yi puus watey député yi puus watey njiitu réew mi wax ji jeex mu dellu ne faax te coow di jib ndax moom ci boppam moo leen gën a xam ne fii di Sénégal layal fi troisième mandat yomb fi donte am na ñoo xam ni mook sëgg ci ndox mi dëtam ko naan la ñu yemale waaye bés bu ñu leen yóbboo vaar ñu waaru ndax li Macky Sall wax fépp ci ne du mës a def troisième mandat bu doon ab paan la ñu ne teeñul ma ngay rembat dëgg la ne opposition xaajoo ci Sénégal du fi gulet waaye fii ñu fi yegg tey musula am ñu bokk genn gaal bu kiy joowee jaar fii kii joow jaar fee ñoom ci seen bopp ñoo la gën a xam ni gaal gi du dem fenn waaye ndokkee yàlla ba ñu leen dénkul suñu gaal gii di Sénégal ñu mënula déggoo ci opposition bi amee benn ndombool tànk bu ñu jiite woon réew mi ana fan la ñu koy waxee du ma wax la Senghor waxoon Abdoulaye Wade ne bopp bu attanul karaw du mën a attan am réew waaye ñu ne ay opposant lañu te ànde ndakaaru gii rek dem ba jam ñaajo mënuñu ko ndax ay xiiro ak ŋaayoo ci seen biir ki gis-gisam yam jam ñaajo moo leen tane foofu askan wi lànk leen ba ut leen lànkle bañ leen bu leen féetewoo tàccu yi saaga yi sos yi ak xeex bi ubbi leen seen i gët te xam ne ñii naan leen pale lañ leen jëmale ñi ci ëpp ci ñoom waxoon naa leen fii ne leen réeroowuñu benn yoon ak ñàngal ñii dañuy mëq te ni muut ñii di mëq tey mbel-mbel yi te la ca kanam raw li gët wasalaam ba beneen conférence. incha allah papa Ngagne Ndiaye ba àllarba ak euh, jàmm yegg si ci coronews mu di ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi ñu ànd ci ak Kumba Yacine Sandiane fay ci àllarba gi mbas mi ni mu tëddee ci Sénégal benn bakkan rot fanweer ak ñent nit ñu amé doomu jangor ji limu ko des di wàcc ci ñooñee fukk ko juróom-ñett xamuñu fuñu ko ay communautaire ci Afrique Maroc dadi wélat état d'urgence Bamfadon fa amal gannaaw bañu ñu nemmeekoo ne li mu ñi amee mbas mi mu ngi yok fofé ñetti junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak bile doomu ci benn rek ci Égypte ñiko amé lim du téeméer ak Ben benn fukk ak ñett lañu gis né am nañu ko fukk ak ñett ci ñom génn adina Afrique du Sud des di des réew mi nga xamante mbass mi mom la gëna laal mu toftalu ci mom Algérie Angola benin Botswana Burkina Faso limu puñu amé mbass mi ci Afrique tollu ci benn million ak ñett téeméer ak juróom ben fukk ak juróom benn junni ñi faatu tollu ci fanweer rek ñett junni ak juróom ñaar fukk ak benn France mbir mi des di tiital ñi ni muy lawee ci digënté altine ak gi ñu ngi am lu ëpp jàpp juróom-ñaari ju nekk juróom-ñetti témèr ak juróom fuk ci ñu amé mbass mi ci daara yu kawé yi faculté bu médecine bu Montpellier fofé dañu daal di dakkal cours yi ndax lu tollook juróom benn fukk ndongo la ñu gis ne amé nañ mbass mi kan ci diggé États-Unis ak Chine mom moy njëkk am ñak mi ap kilifa ci réew Chine di xamné ne dinañ tegandi ap ñak fi ak wérup novembre ay waxtu lañ ci tek njiitub réew Amérique Donald Trump xamle ne ab ñàkk askanu Amérique dinañ ci mëna a fi ak l'US benn

New York Lata at mi di ki koy amal di assemblée générale bu mbootaayu xeet yi. savon Marseille Alfé seen AAD Abdou Ali Majob, Sen savon créole Accenturai, raktak bi ñoo leen ni may li ci yéene kaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf hôpital dalal jàmm ba ca géejawaay la ko wër askan wa ko dëkkee nekkuñu ñu ci jàmm l'observateur moo ko bind ci xët mu njëkk ubbil yéene kaay bi saxaar noy yi mu leen di sonal la ñu ragal mu jural leen ay ñool ñool ci seen wér gi yaram am ñenn ci ñoom ñu xamal Alassane Anne bu l'observateur ne li indi saxaar si mooy waa hôpital dalal jàmm ya ñuy faje malade ya mu di dese yi ba ci faju ci coronavirus bi bu ñu ci noppee dañu leen di dajale dajaloo guddi lakk leen moo waral fu ñu toll di seen saxaar suy sëlsëli ñu koy noyyi dëkkee sëqat ak daanaka fatt guddeeg bëccëg madame Joséphine Koumba Sarr a fan lañu leen di yóbbu léegi ak nan lañ ko fay yóbboo mi ngi koy leeral ci yéenekaay bi yéenekaay beneen bu xëyee meneen mbir mu togg askanu Sénégal fitna moo di journal Vox Populi askan wi jëfandikoo transport en yi la wax ne guddi yi ñu toll ñoo ngi dund lu dara jarul ne ñu bari ci ñoom bu ñu bëggee dem baa ñu bëgg a dikk duñu gis wata bu leen yóbbu ku ci góorgóorlu ba am wata boo dugg yoon yu bon yi nekk ci dëkk bi tax na dina jaar fu nekk ndax teggi bu metti vox nañu xëy na car sax ñoo xaw ndax ñoom seen dund bopp la yor waaye watay Dakar dem dikk yi ak watay Tata ñi leen di jël ñoo ngi bëgg dee li leen gën rey nag bokk na ci place yi ñuy limité ci transport en yi ndax coronavirus gi laatr bi ne ko kay dakk na état bi teggi na mesure kenn kii di Souleymane Téliko président union des magistrats du Sénégal moo nekk ci las moo nekk ci les écoles mi ñu xamal ci xëtamu njëkk ne convoqué nañu ko tey jii ca kanamu inspection générale de l' de la justice la ko fa yóbbu moo di mu leeral wax ji muy wax ci presse bi fan yi yéenekaay bi nañu waaye convoqué googee ñu ko convoqué ca ICAJ neexul magistrat yi réew mi union des magistrats du Sénégal dañoo jàpp ne dañu ko bëgg a xoqatal moo waral convocation bi def nañu communiqué di ca xamle ne danañu taxaw baax a baax ci ginnaaw Souleymane Téliko taxawu ko las yéenekaay xëy ñu baaxee ci xëtamu njëkk li ñu koy toppee moom juge Téliko ko ba tax ñu convoqué ko ci UCAS Le Quotidien ñu convoqué gi ñu convoqué njiital Union des magistrats du Sénégal neexul waa UMS ba tax ñoo ngi koy ñaawlu anki dina kay nañu président Union des magistrats du Sénégal gi ñu convoqué ci UCAS ñi mu bokkal langu UMS gi jàngat ba ñu ci moo di dañu ko bëgg a noppiloo sexal ko wellam ak di ko xoqatal Khalifa Ababacar Sall ëllëgëm ci politique bi moom la journal Sud Quotidien xëye la mu ci gis moo di avenir a dal ci kawam journal Libération nee nañu moo di ki jiite société de transit bii di SITMA tuumay moom ba ko libération wax nañu ko ba wax ñu it ne PV de transaction bi ñu koy signaloo koy toppee mi ngi toll ci ñeenti milliards ñeenti milliards ak lu tekk yéenekaay bii di l'info nee nañu moom dajaleegum ngir dugal ko ci liggéey yi ñeel jumaay Tiwaawoon gi li ko tax a yegg foofee moo di borom mi doole yu bari ci réew mi ñoo yëngu lu yëngu lu ne la ko yëngal ko ëpp doole yëral xët mu njëkk suur suwa ci candidat yi doon def BFM dafa am kenn ci ñoom koo xam ne dañu koo jàpp ca Bambey muy tirise ak téléphone portable ba ñu ko jàppee ca la dawee dem yoonam bàyyi fa examen ba ba léegi kenn xamul fan la fare ñu fare ji ci l'observateur xooli fa lu yéeme te doy waar li muy ne moo xew ca Tambacounda ba teere ji tribunal benn waay bu ànduta xelam maanaam ab dof ñu jéggal ma ci kàddu gi moom la ñu yéene kay bi di l'observateur ne moo gagné pémi juróom-ñeenti millions neuf ak njabootam di xuloo ca xaalis ba ba coow la teere ji tribunal Lat Diop directeur général bu LONASE laaj bi di baadu li njóobeen yi jiite LONASE moo tax dof yi di gagné pémi neuf millions savon de Marseille seen kénkéeri AAD Abdou seen savon ak seen cuuraay raktak bii rey yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ponk bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi moo di gis-gis yegg si nañu ci li ñu ciy waxtaanee mooy layoo bi nga xam ne. dafa jëmoon ci mbiri corruption yi ñu doon wax ci athlétisme fédération internationale d'athlétisme euh, doon amal layo bi fële ca Paris verdict ba daanu tey ji verdict ba ak na mu tëddee nu ngeen ko gisee loolee kon la ñuy waxtaanee ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média ñoo ngi ci jokko bi ak Arona dem mooy vice président bu ANPS kuréel gi jaboote taskatu xabaar yi yëngu ci wàllu euh, tàggat yaram Arona dem maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di moom moo xam li ñu bëgg a njëkk a xam moo di jàngat ban nga amee ci verdict bi euh, tribunal 32e chambre tribunal correctionnel bu Paris joxe ñeel mbirum corruption ba ñuy wax ca I2AF. Euh, verdict bi ñu joxe tey man du lu mbetteel ci man jàppoon naa ni que mbetteel yi moo doon tribunal bi nekk euh, Lamine Diack ak ñi mu àndal ci procès bi li ñu doon tuuma defuñu ko loolu moo naroon nekk surprise pour man parce que dama jàppoon ne que depuis bi affaire bi commencé ba léegi. deux mille quinze ba léegi muy juróomi at li ñu gis rek mooy activité justice française teg yëpp ci li ñu naan instruction en charge maanaam lépp lu ñuy teg jéego yu ñu teg yëpp pour wone que Lamine Diack moo def jéemuñu xool ndax am na ay preuve yu wone deful dara li wër rek mooy am ay preuve pour teg ci kaw table mais moom moo def liñ koy tuuma eh, ci liñ jàpp ci procès bi eh, bi procès bi amee li ñu jàpp li ñu gis ci wàllum preuve parce que suivre nañu procès bi de près euh, que ñu benn firnde que Lamine Diack liñ ko tuumal des na ci dara euh, benn affaire donc lañu ko teg ci kaw taabu mooy cinquante mille euros maanaam euh, lu toll la peut-être xaalis bu toll noonu bu mu nee fay nañ ko Gabriel Doole bi nga xam ne moom tamit teg nañ ko daan tey te mu nekkoon responsable antidopage fële ci IBGAS mais de à loolu te Lamine Diack expliqué ne que kooku dafa waroon dem kiite poste bi mu occupé woon te dafa naroon dem procès ak IAF pour war a fay xaalis bu ñu fay ko pour départ ñu négocier arrangement boobu pour que mu mun jot xaalis boobu dem loolu donc li ñu fa teg xaalis ci kaw table ne corruption am na mais li ñu jàppale ne mooy bu corruption amee rek am na ku korom mhm. maanaam bu ñu nee geer am na am na kuy geraate mhm. mais tey dañ jàpp ñi nga xam ne dañ leen guerre te ñii di guerre kenn gisu ci kenn muy Russie ñoo xawoon wala Atlantique yi ñoo joxe seen xaalis convoqué wuñu ci tribunal bi indiwuñu preuve ne que ñoom guerre nañu donc euh, loolu day wane que peut-être euh, daa am nu mu def affaire dafa demee boor. Hmm. te man à titre personnel loolaa fi jàpp. d'accord loolu Lamine Diack la mais doom jëppa Massata Diack it daan yi métti na ci kawam boo seet sax mooy gën a méttile bàyyi ba ndax moom cinq ans de prison ferme la ñu wax un million d'euros demande mandat d'arrêt international boole ko ki tere ko mu exerce benn activité bu laalee ci tàggat yaram ci fii ak juróomi at yi daan yooyu it du lu du du lu woyof de. du lu woyof parce que li parquet bi laajte woon rek la te boo gisee ci instruction bi bi ñuy waree def procès bi ci janvier avocat Massata Diack dañ jóge woon Dakar ñoom maître Moussa Sarr ak yooyu bëgg a dem France pour fekkee procès bi ñu ne leen muñ fa ñëw parce que dañuy reporter procès bi ba juin ñu ñibbi siwaat Sénégal ginnaaw bi mu am crise bi di corona bi juin bi ñëwee ñu war a teg procès bi ñoom ñaanoon nañu pour ñu may leen weer wala ñaari weer pour que bu corona bi jalle ñu mën teew ci procès bi tribunal nangu leen loolu hmm. teew donc moom xam nga liñ naa rek ku teewul rek ñu jël yëpp tuuma yëpp teg sa kaw hmm. euh, doo mun setal sa bopp hmm. moom loolu moo ko ci dal te gis nañu que li ñu wax tamit te moom def na ko ñu ñu accusé riis yi musuñu indi ne ñoom moomu leen def parce que même liñ ne woon ne que Moscou demoon na fa rencontré na athlète bi di Suvakova atlétisme bi nga xam ne nañ joxewoon na cinq cent mille euros maanaam trois cent vingt sept millions à peu près CFA Euh, pour jox ko benn sénégalais ñëpp ne Massata Diagne la bis bi mu nekk xaalis bi joxe nañ ko euh, ñu indi document yi bi ñu wane nañ passeport am bis boobu moom fekk ko woon Russie mooy woon ko maanaam que mënul nekk ko ci même bés ba nekk tamit Moscou loolu day wane que quelque part. am na euh, légèreté wala bëgg a dugal nit ki. bëgg a dugal nit surtout que li ñu ko teree exercice parce que ñëpp xam nañ xarañam ci wàllu liggéeyu marketing bi mu doon def te buñ ñu dootul bokk ci métier bi. peut être ñii ko teg tuuma yooyu ak ñii ñii leen ci jàppale euh, pour ñu am buntu ñoom jël place am jël liggéey bi mu doon def parce que xamoon nañ ci ñii gën a xarañ juróomi nit ñi gën a xarañ àdduna ci wàllum marketing ci wàllum sport moom ci la bokkoon donc euh, dina libérer place pour ñi nga xam ne dañu bëggoon bañ bëggutuñu africain yi maanaam bokk ci métier yooyu. xëy bien euh, foofu sax laa bëggoon a foofu sax laa bëggoon ñëw xëy na euh, du du lu ñuy sawar di waxtaane waaye ba layo bi jibee ak léegi lañ ko ci dégg bari na mu di mbir yi dafa maanaam dafa rax euh, racisme. waaw dégg nañ sax ci procès benn avocat bu taxaw ci baar ba ne Lamine jaag africain la amul capacité am mënut mënuta jiite organisation bu toll ni IAAF lu gën rek la fa mën def lu jubati mhm. avocat wu ama ak kii di CIO e moo wax loolu ci baaru tribunal Paris ci procès bi loolu nag boo ko jàppeewul racisme boo nee nit ki kii ñuul dafa ñuul jóge Afrique moo tax mënul euh, occuper benn fonction def nga racisme te bu tax taxawee ci baaru tribunal di wax loolu dama jàpp ne lu garaaw la lu loo xam ne kenn mënu ko bàyyi mu jàll mais day wone état d'esprit bi justice française nekk ci dossier bi parce que fële ci France kii di Michel Platini nangu na ne jeunesse bu la jox na ko ci deux mille deux la ko liggéeyal benn liggéey nee na waaye deux mille onze lañ ko fay deux millions d'euros maanaam milliard ak ñeenti téeméeri millions euh, un milliard trois cent la ko fay pour liggéey deux mille onze la ko ko fay pour liggéey bu mu defoon depuis deux mille un deux mille deux wo pourtant ba tey moo ngi doxay soxlam kenn mosu ko tere dem fenn kenn mosu ko jàpp comme liñ teg tey Lamine Diack juróomi at a ngi ci procédure ba léegi jugé wuñ leen donc lu ñu yàkkamtee ñoo di jugé Lamine Diack wala di ko téye France depuis juróomi at tere ko génn France euh, war nañu posé way question bu doon nit ku xees euh, tubaab la wala américain la mm-hmm. wala chinois la ke du demee nii russe yi la ñu accusé ci procès bi que ñoom ñoo doon guerre ñoo def jafaage yooyu mais ci procès bi gis ñu fa benn russe Lamine Diack donc lañ fa teg te moom tamit dañ ko piégé buy mu ñëwee ba France ñu koy doo ko jàpp invité ko mu ñëw ñu doo ko jàpp teg ci kaso bi loolu day wane que dawaluñu justice maanaam lu gën a nuroog jaayum doole la gën a nekk ko. très bien jërëjëf Arouna Deme maa ngi lay gërëm bu baax a baax. yaay vice-président bu ANPS association nationale de la presse sportive waroon nañu ànd ci waxtaan wi ak professeur Abdoulaye Sakho professeur agrégé de droit expert euh, management du sport suñu jokkoo ak moom jàppandewul euh, ñuy jéggalu ci auditeurs yi.

savants de Marseille 100% naturel possède un pouvoir nettoyant